mais ne ko band moom jeex na 12 ans moom mënatu amaat beneen moom Ablaye du Ablaye Daouda Diallo du Amadou Ba <laughs> voilà gis nga c'est loolu leen Idrissa Idrissa Seck ndeysaan moom boolewu ci boppam sax gis nga wor wor baaxul wor ndeysaan sama gars yi suñu papa Idi mi ngi ci dëkk bi de ndeysaan boobu lay saf ci yàlla yàlla ñu yàlla muccal te musal ñu ci wor wor moo bon wor yàlla da lay toroxal Idrissa Seck de mi ngi ci réew mi ay booy ndaw ay ñu ñu ñu ko mat doom lañuy wax. gars ay Sonko seen dernier sens sax Idrissa Seck mun na ko jur Idrissa Seck def ndeysaan dafa <laughs> ma ngay weex tàll toog di wokk boobu rek eh waay may doome ram war naa nii askan askan waa bàyyi nañ ma de day safatuma ko waa pap pap man de réew mi kenn du ma waxtaane duñ ma wax ci plateau duñ ma wax ci mbedd duñ ma wax ci grand place ma nga ne xut jom mi <laughs> dina mel ni ma dikki ñaa fu ma dem toj ko fu ma dem toj ko am am am deux voix fu ma daan toj ko am deux voix Idriss Seck yi dina mel ni Mbacke kii <laughs> Madické Niang xam naa Idi dina ñëw gaa <laughs> gaa yi di ko woon ginnaaw gaa yi waa man la Idi Idriss xanaa da ngeen maa fàtte Idriss Seck Idriss Seck bu Ablaye Wade waaye yéen sama gaa yi nu ko demee nii ah xool élection dina ñëw Idriss du gis picc picc temps yii passé woote woon na maa ngi woote képp ku nekk euh, réew mi nga ñëwaat la retrouvaille de la de la famille de réew mi xool picc gisu ko picc <laughs> yàlla bu roccee jalaal ci yow yàlla bu roccee secret ci yow oh mooy fleur yi sax ñu lay gën di seeg nee na le retrouvaille la de la famille de la famille réew mist le retrouvaille de la famille réew mist lañuy ñoom ñëpp nañu ñëwaat xol jour boobu këram jabar ji moo fa toog ak moom ak ak doom yi góor yeeg jigéen ñi ñu ñu ubbi seen bunt di xaar suba ba guddi nit duggul ci biir kër ga suba ba guddi nit duggul ci biir kër ga sa eh, retrouvaille bi ci këram googu noonu mu koy ne palem boobu nekk nekk Thiès la ko bëggoon defee ubbi nag toog di xaar na demee retrouvaille dans mon salon am na caakiri am na fonde am na laax <laughs> soxna si moom yéen xam ngeen ko moom daf a bëgg ko doxaan dafa bañoon mais après bu kii yaay ne ko dama ko doxaan mu bañ ah, la hmm, moo taxit après moo ma woo sax ma si si si je t'aime I love you moom gel bi bu ma ko doxaaree mu bañ si guddi gel moom moo ma woo toute la nuit naan ma j'ai rêvé de toi ubbi buntam xoolal Pape Djibril Fall sax ko ëpp nit <laughs> Pape Djibril Fall sax moo moo ëpp Idrissa Seck ne ñëpp ko bàyyi ne yàq bu naqari non Idrissa Seck gars yi wooyu ni ngeen def Idrissa Seck ñaaw na non sénégalais bu la bàyyee jibu lay tikaa la may fàttali ni ngeen defoon fii jibu lay tikaa ngeen def Idrissa Seck wóor <laughs> non ni ngeen bàyyee yàlla bu leen ma bàyyee noonu yàlla bu leen ma bàyyee noonu yàlla bu ma def ni ngeen may xeebee ni ngeen xeebee Idrissa Seck yàlla bu mu mus a def ni ngeen xeebee Idrissa Seck yàlla bu ma mus a def loolu ba ngeen xeebee ma noonu ni ngeen bàyyee Idrissa Seck ñaaw na de yéen tamit gars ni ngeen ko def ñaaw na de papa jàmbur la it papa jàmbur la de ak lépp lu mu leen mën a def ni ngeen fay woon ni dafa ñaaw kon yéen nii ngeen di def nit ni ngeen ko fu ñukk ne yàq bu naqari bu waxee du saf bu jógee kenn du ko yëg bu toogee kenn du ko yëg mu ngi mel ni ku faatu néew yi sax ko ëpp promotion ay waa Idrissa Seck néew yi ko ëpp promotion ñoo xam ne dee nañ mille huit cent ba léegi ñu ngi leen di tudd ay ñoom jiili mbay ak njuga kebe waa jaa ngi mel ni ku dee fàtte nañ ko suul nañ ko wala Sénégal yii kuy def defal lu baax buñ la baax rek nga torox non dañ lay multiplier par zéro jël la suul la te deewoo <laughs> waaye yàlla ma yàlla mu tël ci ni ngeen def Idrissa Seck cëy xaaral mu naan sama attaaya man na ko def tey idi ah soo tari suratu muñ rek idiri borom saare ak kaw mën a gàcc voilà maa dee mu ñëw mais nan ngay leen nax cent ci ay saar Idriss depuis jamono Ablaye ngi nekk tout tànk ba màgg nañ tey laal quarante yi léegi muy ñëw bu ma demee ma ñëw fekk ko mu teg euh, café ak beñe dugub bu ma xoolee sax xool naa set beñe dugub la ak benn bu mu jot a xàmp set beñe dugub la yu mu teg noonu café gi mi ngi ko teg xam naa café Touba la parce que mi ngi xeeñ jar mais bu ma ñëwee fekk Ousmane toog mu ngi nekkoon quatre heures quarante cinq ñi ngi waroon xëdd euh, quatre heures cinquante dañ ko waroon salaatu mu ñëw xool gis chaque bañ a dugub yu ñu tegee nii day mel ni sax carré nu mu ko tegee day ngay xool te rectangle la lay jox maanaam rectangle parce que nii la tegee bañ dugub bi teg ko nii teg ko nii day jox rectangle da septième bi nag boobu dafa mel ni da ko xam si rek sama xel dem ci surat al fajar asra ak al fajar fu yàlla di waxee ci fajar ci maanaam jóg leen ngeen julli ci fajar gi suratul al fajar balaa maa dee mu commencé réciter yaa yàlla naan <laughs> jàpp yàlla di ko foowee jàpp yàlla ak saaram yi sooraat yi ne moom da ci politique di ko politique quoi di ci di ci gël walaate idi fii xoolal kii bi idi fii kenn jommeetul xola léegi gars yi jommalatuñ léegi tubaab bi defar nañ la idi xoolal fii boo defee nii ah xoolal boo defee nii mi ngi nii muslim pro idi fii mënutoo fi wax lu ñu xamul xool la ngay wax nii fii muslim pro booy bu ñu amee muslim pro ba léegi jombalatoo leen ñi la ñuy def rek dugg muslim pro ni nii xoolal dugg mu ngi Coran mu ngi nii le xool bu parce que ci Coran nga ñuy jéem a naxee tak tak nga dugg muslim pro Coran nga nga xool sóoraat bi mu wax la ko français anglais idi jeex na yooyu ba nga ko def muslim pro amut ba ñuy fooyee jàpp sóoraat yi di dakka teg di xëppati di rulle r yeeg yooyu xoolal boobu muslim pro amut léegi gaa yi po yor muslim pro nii la def rek dugg ban sóoraat ngeen bëgg mi ngi nii yëpp ngi nii <laughs> boo leen bëgg rek mi nii rek ngeen wax ma ci saase ma tegal leen ko <laughs> léegi yaa ñoo metuñ de muslim bureau bi la ñor kon loolu ce moyen de de de manipulation de propagande yooyu c'est dépassé c'est dépassé c'est dépassé yal na la yàlla yërëm yow dama ragal balaa deux mille vingt quatre nga faatu ci naqaru xol xel ma yaakaar ni balaa deux mille vingt quatre nga nga dee ci naqarub xol idi yàlla na yàlla yërëm waay cey idi nu mu mujjee ñaaw na <laughs> man xaw ma yéen a mun a bàyyaate xaw ma idée leen def lu ngeen ko bàyyee waaw foofu bugg naa ñu wax waaye yéen idi moom lu ngeen ko bàyyee nii lu mu def gars yi idi idi ni ngeen ko bàyyee ñaaw na te ay waay idi ni ngeen ni ngeen ko ne ñukk na yàqu bu naqar idi ni ngeen ko def na ñaaw na trop kenn du ko def doomu aadama jël ko furaaseel ko toroxal ko ba mu ne tot fompee ci seeni seeni ginnaaw kër ay waay Iddi di ngeen ko def ñaaw na Iddi di mi ngi dund mel ni ku dee foo leen dégg Iddi foo leen dégg Iddi sama gars yi kenn gisu ko ay waay waa gars yi fan lañ suul Iddi ban ban cimetière ñi dem ñaanali ko foo leen foo leen ko suul xanaa boo leen buñ boo leen suulee nit sax ngeen wax ñu fan lañ ko suul ñu dem ñaanal ko dóoru ko dóorul ko illixlaas ak falax ak naas yi